Samba Ndiaye mi ngi may fàttali waaw waaw waaw yow. lu mu lay fàttali. ba may woy ay Samba. bu nu ma sànn tuusoo. yaa ngi sàcc mbari tuus ñu bare. wàcc ma danan wóor lu ñoom lu ñuy seen kaw. bu lamb ji sàccee na way ko ba ci géew ba. ñaari mbër bu ñu daanoo jaxanjaay. nekk sa mbartanaan moo taane yi ki nekk tey ngoma kii mooy as ngom kii mooy suñu mooy mooy séeri bu mooy soo mooy suñu mag mooy séeri la njag kii kii soxna yi la bokk mami waaw waaw <laughs> waaw mooy ndékki de moo moo kaas bi <laughs> waaw waaw moom doon waaw fay baa ngi nii ah Eumeu seen junior la ñu taxawal Eumeu ñu ngi fii Gàmbi nga ànd ak sa mag sa turandoo ci wàllu lam bi mu fi duggee li nga gis waa Gàmbi yi ñu ko teeroo lan lay def ci mbër waaw gannaaw loolu dañuy sant nuy waa Sénégal yëpp ak waa jur Diourbel sama dëgg ñu nuyu waa Gàmbi aussi amul dem amul lu ñu kontaanee wu parce que xam nga yi jéggi na dayoo maanaam parce que weesu na suñu njort quoi yaakaaruñu noonu am na demee nii mais vraiment Gambie yëpp war nañu amal seen xam moom la ñuy support ñu bëgg am Gambie yëpp. daanu warutul nekk. lu tax warutul en tant que mbër. li ma gis démb mënatul ànd ak daanu jàmbaar du ñàkk te bisu démb bi du bis bu ndaw li ma gis démb fii ci Gambie gis ko ci Sénégal non Eumeu Sène nekkatul Eumeu Sène nekkatul Eumeu Sène Pikine de Eumeu international la. waaw. Gambie fii affaire bi rafet na trop Gambie accueil nañ Eumeu Sène accueil boo xamante ne man franchement parler bett na ma lool jaaxal na ma démb dem naa ba yéemu xalaatuma woon ne Eumeu Sène war am na fi code bi waaw Gambien yi bëgg nañ Eumeu Sène ba fi bëgg yam Gambie gépp ak génn. kon daal président Yaya def na lu rafet. waaw président Yaya Jammeh moom amuñu fayam def na lu rëy rëy ba pare accueil nañ accueil bu accueil bu nice. lii nii mu am nii nii nii nii am na ñeneen ñu ko bëggoon donte am na ci jaar sax mais na ñeneen ñu ko bëggoon te mënuñu ko am. kon li mu am ni sas la boo xam ni war na mën a tax mu gën a yokk nekkee si làmb da war a war a jom ware fula wala fayda lu ko dese hmm? lu ko dese non xamaat boppam xamaat fu muy teg tànkaam rek affaire man sama yaram dafa daw sax quoi parce que public bi nu mu génnee xam nga li ma ci wax daal mooy di ñaax sa waay xam nga mu xoolaat bu baax xam nga victoire fu mu ko yóbbu ñu gën a joob nag ensemble boole xel yi mu nekk ak xol yi ñu nekk benn xam nga ñu dool boole mbooloo mooy doole daal président Yaya Jammeh kontaan nañ ci moom bu baax comprendre ba pare nag di ko jottali suñu nuyoo président Macky Sall suñu président sénégalais yëpp. vraiment ku mel ni suñu grand monsieur ni suñu kilifa dañ naan suñu kilifa dañ koy di tarbiyu ndax dafa nekk jëmm ju ñàkk i ñaan jëmm joo xam ne dafa oyof wàcc boppam te doomu aadama leen rek nga ko mën a jaay di am ko muy ab eh, eh, taalube te monsieur daa am ab taalube. dafa am benn wax bu mu wax te gars yi baayuñ ci xel mu ne leen bu njëkk di mbëri ki moo doon bërikat bee doon ñëw. waaye instant toll nii bi mbër mee ñëw ak ay bagaasam te wax na ko taxamul xamul ne Balla Gaye bàyyi sax xel ndax lamb ji daf ñu jaraloon suñu bakkan tey ji ñun booy yu ndaw yëpp suñu amoon combat daanu yow moom ñëpp ñu daan yow moom mu daanu fan lañ jëm ñun ay trois mois ñu ngi këram di fanaan. taay sëng bi yëpp guddi du ñu nelaw guddi du ñu ndax façon nit ku ne jaar dafa yëpp pour bëgg a indi ay gàllaaj ñu jaayante moom suñu bakkan. mais dégg naa am nga ku ngeen fa jàpp. am na kuñ fa jàpp duma ko duma yu neex na nangu ci moom ay gàllaaj loolu sax dañoo waxoon sax duñ ko wax dañuy tourner la la page comme que moom moo dégg téeli téeli ay gaayam lu ñu ko en fait xaar mu ngoom amul jotu ñëw naan dañuy indi ay gàllaaj kër et këram te ñoon dañoo toog di veillé mu jaral ñu trois mois kenn nelawul kenn entraîné wul soo ma xam ne ba jamono baas ni ma toll ak ni ma tollaat nii kenn nelawul daf ñoo jaral ndax tey jii su ëmb seen daanoon ñun fan lañ jëm te dañoo dëkk ak suñuy noonu làmb biir Pikine te barki sëriñ Eumeu Sène jour làmb jëm ñoo taxaw si suba teel gi muy muy miir bay bay nar a daanu wóor na sëriñ to may jooy si laa téye fourne bi ba lakk moo taxoon Eumeu tiit ba ma ñëwee ba làmb jëm mu tuus ma tëb yëpp rëy ba muy tëb rëy tey ma ko dama dama di eh, di eh, gi di yeewu na ndax ki ma génn suba ba ñëwee ba làmb jëm sabar yi ba mu tëbee yëngal damaa tëb rëy mel ni xale bu ndaw. Ibrahima moo yor wàllu musculation Ibrahima ñu xool ama bi muy bëreeg Modou Lo dafa pataa ñu gis bët ki démb Grèce gi dem ñaari entraînement yi ñoo dul benn wala la. non benn la mais dafa nekk ni que problème yi ñoo bokkul quoi. maanaam dafa bëri pression yoo xam ne ni ko bëriwul. est que bee entraîné na. si entraîné na. bii bu combat bi yàggoon tam dina mën a résister parce que bële bi yàgg na mujjul xoox. waaw mais résister na quand même ba presque temps bi jeex. kon ngeen xam ne ni coffre baa ngi fa mais Eumeu Sène buy bëre moom gémmiñ lay gën a di nooyee nit ku ko gis da yaakaar dafa sonn te ñu bëri ci loolu lañuy kii mais dañuy def erreur. kii seen kër la ñu créé bul faale. xam naa aussi lii ko ay supporteurs am jaral ba donc xaarul woon dara da doon joxe ba mu jeex da doon joxe ci wàllu xaarul ba bis bi rek pour mu ñëw pour dëggal boppam maanaam avant bis bi daf ko waajal ni mu ko war a waaje ci entraînement ci fulla ci fayda. ci yëpp côté bàyyiwul dara donc nii rek la nu demee. waaw ndamu Pikine la ba pare ñun ñëpp ñu ñoo bokk ndey bokku ba ñi ñëw ak ak ñi ñëwul ak ñëpp seen xol ñu ngi fii quoi parce que Pikine comme ni nga ko waxee rek benn bopp la te kenn mënu koo xal ñaar te kenn du ko xal sax jàmm rek moo fay am ñu ñëpp ñu fa nekk ñëpp ñooy bokk ndey ñooy bokk baay. xaadim nga doon mbër sa mag doon mbër am ndam un président de la république teeru ko dalal ko ci réewam waa réew ma sargal ko ko boppam yow loolu boo ko gisee lu mu def ci sa yaram ak ci sa xol. waaw alhamdulilah rabbil alamin vraiment kontaan nañ trop trop trop trop trop vraiment. waaw yooyu nekk na affaire bu rëy daal vraiment. ñu bëgg làmb de. yaa tax ñu bëgg làmb bu ñu tamit bay toog ñun jigéen ñi di seetaan la làmb yow à cause de yow la yaa suqali làmb yow yaa ci bekkaay mbay di nga kuuy ma jug maye lu bari sama njëkk bi mën na ko seede barke Seydina Mouhamed eh, sama doom laa bu ñu seetaan làmb yow yaa tax di nga kuuy ma jug maye ju am nga doom ju baax ju bëgg ju bëgg jëkkëram mën a sëy am diine am l'islam chaque àjjuma day dem jumaa di toog nag combat bi yëpp un mois da koo woor loolu la loolu la doon. chaque lundi day woor waaw chaque aj moom dem juma. moo koy seede ñun ñi ànd ak moom. ah xanaa sama jabar ji moom aw ma fayam maa ngi koy ñaanal li muy jeex ci sama kër gii yàlla na ko gis te bu ko gisee yàlla na ko jig la muy sëy moo dépassé âge xale bi del ma teg ma ci kaw oto la ma may. Yaya Jammeh da koo may oto fii mu may ma oto ba ko ëma jëndaloon dëndaloon këram ne ma as oto bi maa la ko may yàlla na ko yàlla lafal cat li muy ut ci sama kër gii yàlla na ko gis bu ko gisee yàlla na ko ji ah sant yàlla rek kontaan rek bilaahi gërëm supporter u Eumeu Sène yëpp fans club bi Pikine bàyyiwuñu kenn ginnaaw raay sama waa kër di nuyu sama maam nag da doon jooy rek ndeysaan biñ ne suba la ko mab daa jooy ba ñu am ku ñu wooy pour mu ñëw defal ko mais wax ma juste nettali ma ci combat bi loo nekkee woon yaa ngi doon xool télé wala xooloo télé wala noo def ko combat. damaa dem jënd ay garabu nelaw naan ñaar mënumaa nelaw ma naan ñeent gën a xoole ah bon ñeent garab laa naan mais nag garab gi daf ma yee mais nag ma gëm yàlla rek dugg sama néeg jàpp julli yor sama kurus du tudd yàlla rek laa ilaaha illallah rek. seetaanoo télé. seetaanuma ko. noo ñi di yuuxu mais nag li mu njëkk naa tiit ndax dama sama jànk bi kër gi ñu jàkkaar dama gis mu génn di jooy ma ne wuy daan nañ Eumeu Sène ay waay yàqooti naa fu ma jëm may waxaloo yeggalee gu ma sax ma gis nit ñi daw maa bu yuuxu yi ma xam ne Eumeu Sène daan na mais tiitoon naa nag tiitoon dama koy xalaatal sax di tiitaat ci biir xalaat bi bu daan woon nag dina metti torop ndax dafa ma takk daanu ma dégg lu ne mu dégg lu ne moom it mu support ma jàpp rek te woo bàyyi ci garmi la mu woom ba ma ñëw mu ne ma xujja sa yow ma ak yow làmb su ma amoon set défaites sax mbaa dix défaites tey laa la gën a bëgg man ak yow sa yeewuñu làmb bul faale ñuy wax man xam naa yow yaay kan mu ñor rek nga toog sa sëy nga gérer mu feebar nag torop ci combat ba ma tiit. mos laa wax jabaru mbër dafa métti. foo ci métti yeeg romb na far mu feebar lool papam tiit sax ba ne ko renvoyé combat mu ne ko sama ngor may ma mukk ma renvoyé combat bi su may dem Balla Gaye di ma dóor ma daanu sax dinaa dem dóor ma ma daanu waaye combat bi du ko renvoyé mukk. laax ma ne ko demal Eumeu Sène yàlla da lay may lu baax yàlla dalay lay suturaal ma ñaan ci yàlla nag ne bu dee Eumeu Sène coono gi mu daj ci man lépp dégg lu ne daj lu ne ndax man mii ñu wax lu ne ndax man lépp lu baax lu mu ci doon yàlla na ko yàlla fay ci bisam bii mais nag sant yàlla rek. léegi nag bi mu demee ba leer na nag moo daan nag nga def na. kontaan jug jàpp ba seel julli timis ndax timis la tombeloon julli ñaari rakka saabal sama borom ndax lépp moom la. dama ñëpp dañuy nelaw ma jug 4 heures du matin di julli woor presque plus de un mois ma di ko woor di ñaan yàlla avant combat bi di ñaan yàlla dama doon woor ba moom na mën a naa arrêté woor ma ne ko damaa jaayanteeg yàlla suñu borom dama koy matal du ma arrêté woor bi bee ba ma woor ba xëm il ma nekk de l'arène nag il faut ma nekk ko nag ndax couronne bi nag def samay sër rabal ak yooyu <laughs> xalifa mu ngi ci Tay lan mooy xalifa ci biir Tay lu mu représenté. waaw xalifa daal ci gàttal mooy coordonnateur Tay Shinga. ci wàllu communication ci wàllu jokkalante. ci wàllu lépp ci wàllu lépp man maa nekk ci bopp bi man lañ jiital ñoom ñoo ma jiital ci bopp bi xëy na ñoo xam lu tax ñu jiital ma dañuy sant yàlla rek ci loolu te di góorgóorlu nag ay xale lañ waaw parce ay xale lañ te dégg nañ ci lu ne nag. mais loolu affaire àdduna la affaire nit la te challenge dafa baax ci nit ni mu baaxee ci mbër noonu la baaxee ci nit sax si wàllu doxalinu àddunam donc noonu lañ ko jàppee di ci def lu baax nag di góorgóorlu di jéem a roy ci ñu baax ñi te xam ni yàlla ñëpp la fi nekkal te yàlla mën na jox ñëpp résultat. bi su tay bii sanq dama gis ngeen di interroger nit ñi ma gis booy si ndox mi di pàccax pàccax yi ëmm seen di def lu ne euh, sama yaram daw parce que li tax sama yaram daw bisu tay bii am na si yeneen détails yu ñu moom ndeyu mbili gi bisu tey bi fekk na mu feebar feebar boo xam ni bu si yàlla wisu toon ndox mu sedd yaakaar naa ne combat bi du am tey ban tala def lii. demoon ngeen ba xalaat combat bi bañ a am. wallaahi la azim demoon nañ ba vingt minutes avant combat bi Eumeu Sène fi mu tëdd mënu koo jóg. billaahi wallaahi. vingt minutes avant ngeen di départ vingt minutes avant muy ngemb. maam entre trois heures trois heures et demie. wallaahi la azim fi mu tëdd mënu ko jóg añut affaire bu garaaw laa lay wax lamb ji bi ñu koy bëree ji Eumeu Sène añut. billaahi wallaahi wa taalaahi euh, wàcc na mu nekk direct. ngeen baal ma si kàddu gi dem na douche mu nekk deret mu ma sama joobax bi dafa mel ni dañ si takk fil di ko xëcc man personnellement mu tàpp si tànku papaam tëdd man personnellement maa ne ko ëm mu naa man ko jógal parce que boo jógee ngemb ñu dem stade nga gis waa Pikine ni mel si kaw tribune bi walaay la sim da ngay da ngay wér bi ma ko waxee loolu mu ñot ñoti jóg ñu ànd dem ci kaw ñuy préparé mu commencé def ay affaire am di sentir li mu doon sentir ba léegi man ko foog nga bëre parce que lamb yi tey ji maire bi moo ko moom suñu yaay moom moom làmb ji. mais après mu firi mu wallaahi la. bi mu firi koo jaaxle génn instant yooyu sax génne na génne naa ay xéewal. waaw maam bi ma bi ma jooyee nag ci la ci la firi parce que nee na ma bi nga jooyee xaw tuut ma jooy ma su ma jooyee làmb ji yàqu. loolu moo tax ma firi ree mbalag la kaf ak yow ni la wér naa pour bëgg laa soulager parce que jege nga ma jege goo xam ne am na ñoo xam ne boo ko comportoon wallaahi la asim wérut ba mu demee làmb ja ba mboor ngoom tëgg tribune bi yuuxu mu xool stade bi xam ne tey stade bi moom la ci la ëmb seen wér man wallaahi ci laa gëj dégg mu jàmbat feebar boobu ba fii may waxee ak yow wallaahi lazim kon li ko gën a motiver mooy waa Pikine yooyu ñuy gërëm yàlla nag boo gisee ma ne xale yi fo leen rey leen def leen lu leen neex lii moo ko waral di la gërëm yow it parce que euh, sa patron El Hadj ak ku mel ni yow ku mel ni ay Youssou Ndour ñooñu exemple ngeen si réew mi tey xale bu fi bëgg dara rek wala yàlla di la wërsëgalee dara rek war ngaa mën a teg ñooñu bëgg bët comprendre ma la te ñun suñu vision suñu vision mooy xool genre yooyu xool ay El Hadj ñu mel ni El Hadj Ndiaye ñu mel ni Youssou Ndour ay as beka yi nga xam ni dañu commencé zéro te tey te tey boo ñëwee tey fekk ni am na loo xam ne kere nan ko man ñooñu laa gëm di gërëm suñu yaay as sungoom suñu sœur jabaru ëmb seen oto la ko may. tous gëmu ko. ah euh, si non mais gisoo Tyson même Tyson 2 na ma yow est ma ba sama papa sax def na ma doo dem bëri ji waaw wax dëgg yàlla. ah ji gars yaa tuus mbëri yëpp sama dem nañ mais man boobu maa ngi nelaw mënu ma jukk waaw boobu sonn naa. kañ nga yeewu. Eh, non ça après dama rek ngemb. ngemb dama koy damay li gën a garaaw ngemb damay sol kii sax dem toog tuuti ñëwaat. takk jël sër bi du kii demaat tëddaa ki waatu di ñëw noonu laa ko defee ba ngemb li man ma soo ñëw waaw sonn naa trop. mais ban moment nga yeewu carrément ci biir làmb ji laa bi nga duggee. saa ma duggee xam nga ci làmb yi xam nga ñëw commencé di tuus waaw foofu daal ma dégager lépp su ma sama lii quoi waaw waaw waaw xam nga boobu nag quoi maa ngi góor waaye médecin bi dafa waxoon carrément doo mën a bëre. naroon ngeen a woote ni làmb ji amul. non ñoom dem na ba bëgg jooy sax. sa gars yëpp Tyson 2 def na ma du la bàyyi ngay bëri ji billaahi moo boo wooye barke yàlla mais kon naroon na garaaw parce que kon dana tu vas am seen combat bu mu ñëw rek mu renvoyé non xalaatum baat boobu la non kon loolu laa xalaat moo tax ma ne non damay bëri ji non yàlla xam nga yàlla yàlla def waaw yàlla def na affaire yëpp ànd quoi billaahi yàlla rek vraiment na benn handicapé bu nu gis gis nga ko non non ah gis loolu non kooku yaa non kooku da doon bërëngu. te ci noonu la mën a exprimer woo am na ñu ne woo ne pour nga wane ko man leen mais ku nekk ak na muy exprimer woo. ku nekk ak na mu mën a wane mbég. kontaanee absolument. waay waay non der dëgg la der dëgg la 100 pour cent yi la bokk quoi. waaw am na ñoo xam ay 100 pour cent lañu xam nga. ñooy vrai der lañu waaw waaw. ay ndaanaan ñoom ginaaru ginaaru Pikine di bëri sax moo la ñuy faral. waaw waaye dafa wax léegi quoi mais ci un dem demoon na ba dem ci suuf mais ni pël feeñ la. waaw xam nga ma ne ko jom xam nga ak ak ak ndimbal yàlla suñu borom. waaw xam nga jom jàmm quoi voilà xam may expliqué àdduna moom amul solo quoi. des fois dina dem ba gars yi gëmatuñ ko. xam nga mais aussi xam nga wét gore wétali ko gore quoi comme li ma wax temps rek yàlla koy gëm ba pare woolu ko waaw xam nga mooy suma wax rek xam nga man yàlla dafa def sama xol regg na. sama xol dafa regg lu ma yàlla may ma doyloo ko lu ma ñàkk tamit xam nga muñ ko quoi waaw noonu laay dundee sama laay xam nga mun naa dem ba xam nga ñaan ma ko yàlla ba yor du ma yorati dara mais damay dund parce que ci loolu laa njëkkee quoi dama commencé ci zéro xam nga dama commencé zéro xam nga am ay jaar jaar yu. saay saay nga woon ci ay dem géej doon na ngoo jàng dem di yóbbu ay xaj. waaw man moo yoroon naa plus de trente trente cinq xaj xaw ma quarante. loolu boobu ban ñaata âge nga am boobu. bon maa douze ans yooyu rek jàpp treize ans xam nga. <laughs> mais yooyu affaire wundu la. ñoo yar ñii ñoom ma yar xam nga. billaay boobu Moussa sama xaj mun naa ko jooy ñaari fan. billaay wallaahi. ana sama xaj ya. ñu ngi fa ñoom Sogo ñoom la bëgg loo xaj. waaw wooy parce que nag ñoom dama dama nekk ak ñoom mu nekkee booy ba mag ak ñoom xam nga ñoom Pax xam nga sama xaj yooyu xam nga ñoom xam nga Kamia xam nga. ñoom Kaliya waaw toj naa Pikine moom kii moom moo ma yar suma grand la xam nga moom moo ma yar xale booy waaw xalifa suma mag la àndal xam nga suma lépp moom da ko fekkee quoi moom mooy yor affaire yëpp léegi si loo xam écrit bi xam nga lépp ci loo bi moom maa jàng école la lu tax daawoo jàng nga daanaa jàng yi daanaa jàng xam nga non non taw jàng bi moo ëppoon waaw xam nga dem ay bërigo xam nga dem def yi xam nga jëngal dem syndicat xam nga boobu sax lu ci nekk waaw xam nga non boobu moom xam nga jàng ne ko waa waaw wooy xam nga moo soo suñu monsieur bu ma yoroon dafa dem wax ne non kii xel fa neex trop ci jàng mais buggu ko quoi xam nga xelam xam nga looloon quoi xam nga zëngal quoi firi quoi man mos a bugg firi dem géej xam nga xëcc mbaal xam nga jël jën lax xam nga daaw ma sax lekkee suma gàlle <laughs> waaw xam dem terrasse fii waaw xam nga zone quoi waaw waaw mais nag xam nga daaw moon wax nag quoi mu kuloon mais doo def fu bandi quand même non non non non daawoo ko def daaw ma ko def mais xam nga ku ci ku ci ku ma ci woo ci côté boobu tam da ngay dool sëkk waaw moo tax wooy ay indépendance ñi dama wax dof dof bi foofu la jógee quoi ñu wax dof xam nga dof dof du wér xam nga affaire yi demee nañu. parce que xam mooy temps wu 15 xew. ay log yooyu moo xew. yooyu taloo ko woon. non xaw ma ko man ba léegi du ma yooyu yëpp suma si jaar xam nga yàlla dimbal na ma. mais nekkoon naa der boo xam tamit aussi képp ku ci nekkoon ci détail yooyu xam nga buñ musaa daje rek da ngay da ngay xadi ba xam nga nekk naa xale am doole ba pare aw ma leen lu may ragal quoi xam ba pare nag waa jàpp suma ñàmbur quoi waaw ko sa dox sa sa doom la yor <laughs> xool ko moom waaw waaye dañuy wax sama du wax benn place dafa nag dafa ñemee wéet xam nga ba pare regard bi muy xoolee nii moom dalay xool ba xam waaw sama yaay mu am na loo xam ne bu daa xasee xam nga bu may jooy quoi xam nga waaw xam nga non xam nga man dama mel ni sama waay xam nga voilà waaw na mugg ni mugg te mugg danoo garaaw waaw xam nga su ma génnee mun naa jàpp bu nit mekar mekar la mun naa la dër dër gaa bu ne ëma seen a def li sax xam nga danaa non non xam nga kii du wax waaw waaw kii du wax non non xam rek dafa temps àdduna day dox quoi ñu ko live Gozane waaw way non sama gars yi la xam nga loolu moom xam nga soo laajee xalifa sax mën na ci wax lu bëri am diine xam nga mais mosoo simb nekk mbokk non mosuma ko def nag quoi sama non sama mag moo daal simb quoi Pape Ngom nga togg si bu baax plat yëpp xam nga mënoo togg ceebu jën lépp moom a ay cooy la ay yëpp yaa sa ceeb supp kànja tout est-ce que di nga ko def ba léegi wala soxna see moo mooy togg quoi mais def naa ci 15 ans xam parce que suñu kër maa dem togg quoi waaw sama yaay dafa teel dem ko man maa dem togg suñu kër xam nga ñeneen dañ dem jàng ji man maa resoon toog may dem marché. yow ngay toggal kër gi. si li may di dem marché. waa Pikine ñëpp xam nañ ñu may wax dem marché ñoom maire Mountaga ñoom maire Adama Koli marché bi yëpp maa xam marché bi yëpp sama dugg see maire am na daa may boobu booy laa maire sama saaku saka de odo yor sama odo xam nga xam nga barke Seydina Mohamed waaw togg moom su waa ko ñëpp a ngi may togg moom amul benn jigéen ñi kenn ndax mu si togg su ma leen ndaxul togg sax

xam nga xale bu jigéen bu ñëw di may tooñ maire yi dañuy jàppante ak yow xam am na jigéen ñoo xam ne dañu daa tooñ yoonu marché ba mu marché waaw xam nga xam nga nangam nangam di genre xam nga xam nga ni boobu yaa ngi ci école waaw loolu jàng la waaw boobu xam nga dox rek xam nga ànd ak sumay xaj dem dugg su ma ñëwee togg naa xam nga xaa teg bu ñu jógee ñëw lekk après dem ko seen jàng man moom kon ni samay vibes quoi yow nga raxas raxas def lépp xam nga raxas def lépp maanaam togg carrément def naa ci 15 ans cere lépp lay togg Nguurbaan lépp laa xam saab tout aw ma yëpp laay togg yaa sa mboroxee tout. barke xaañe moom mënoo. si dama koy togg bu baax. Bruno ça c'est émou c'est émouvant feeñal nañu secret yi quoi gëree <laughs> la. jërëjëf mbokk yi ñu ngi noonu ci Gàmbi ci xew-xew bu mag bu président Yaya Jammeh xam ngeen ni nitu cosaan bëgg lool li nga xamante ni mu jëm ci wàllu làmb dalal gan bu toll ni Eumeu Sène ci bis bi nga xamante ni nii bis bu màgg la Eumeu Sène ànd ak Boy Niang ànd ak waa écurie Tay mu war a ñëw fi nga xamante ni nii làmb fa xew gis ngeen soppe gi nga xam ne moo dox président Yaya Jammeh nee na ma cinquante pour cent de la population gambienne ay sénégalais la mu ne ma Sénégal Gambie mënul dem sans Sénégal te Sénégal mënut a dem sans te amul kenn koo xamante ni doomu Sénégal gi bu dekk Gambie boo xam ne ma koy def dara kon ñaari réew yi benn la mu ne ma ñaari population yi benn la waaye jafe-jafe bee ngi am ci kilifteef en tout cas ñun de bu ñu sañoon yéen ñëpp ay jubboo bokk ndey bokk bàyyi gis ngeen politique bi. gis ngeen xale yi mën a bëri lii rek moo am Sénégal te moo am Gambie gan ñaa ngi ñoon kooku magu Eumeu seen la jabaram topp ci ki ci topp doomi Pape Diop Boston la ñii ci topp di ay xale yoo xamante ne nii ay jabaru xaritam ay soppeem ndeysaan sunu yaayaa jàmmee ngi noonu nag mu di Kouthia bi fi dugg see micro central bi ci boppam dafa yaakaaroon ne yaayaa jàmme président ci boppam moo yegg si ndax niroo waale bi mu ñëw ànd ak Ndiaye mi nga xam ne mooy Jaliba mbokk yi mu doon événement boo xamante ne nii. événement bu mag la nis nag ci la kilifa gi di yegg si moom Yaya Jammeh noonu la dugg see gaa misigal ko gaa yi teertu ko mu wër mbooloo mi mu di bis bu mag ndaxte cosaan lu am solo la gis ngeen ko dafa dóor oto bi rek chauffeur bi comprendre mu daal di freene a ah, mbokkaa président Yaya Jammeh daal di wàcc nag bi mu wàccee dox nemmeeku mbooloo mu bari teewee nañ ko journaliste yu bari teewee nañ ko et puis mu yemboo it kuréel gi nga xam ne mooy naataangoo ANPS ci senegal ñoom ñu am fa xew boo xam ne doon sargal ñi nga xam ne ñoo di sportif yi gën a feeñ foofa it saan mu doon bërëb boo xam ne gis ngeen bi Yaya Jammeh ñëwee le président xale yi gis ngeen niñ koy nuyoo ah mu dugg ci biir bi moom ci boppam mi ngi xool gis nga mi ngi naan soldaar yi ñu génn mu wax ak ñi nga xamante ni ñoo di population bi ndeysaan xam naa ni àddunaa ngi noonu ñun daal li ñuy ñaan mooy ñaari réew yi ñu gën a juboo ñu gën a bokk ndey ñu gën a bokk baay ndaxte kenn ci ñoom ñaar mënta dem bàyyi morom ma waa gis ngeen jigéen ñooñu ndeysaan ñu ngi noonu moom président Yaya Jammeh ginnaaw bi mu nuyoo nemmeeku gars yi ci lay yéeg nag waa tay gaa ngi noonu ñoom Tyson 2 Eumeu 2 xale yaa ngi noonu ak jigéen ñooñu nga xam ne ñoo ànd ak Eumeu ah, mi ngi ñëw nag gis na nag xaritam gis na nag ki nga xamante ni moo di nuroo waale gis nga fi ñu toll xam nga lu muy wax nanu boo alkaat yi ñëw leen ngeen jàppal ma Kouthia Kouthia nag ndeysaan niroog moom moo tax mu siggi bi mu siggee ni ko na nga ma baal baal ma <laughs> ndeysaan yaa yaa jaame am humour lool nag gis mi ngi noonu di nuyoog soxna Eumeu Sène ak magam ak ñi nu ànd ñëpp Eumeu Sène di yéeg si ah taxaw ci kanamam mu bëgg nag Eumeu Sène ca dëgg-dëgg ndaxte teraanga gi nga xam ne moom Yaya Jammeh defal na ko Eumeu Sène koo bëggul doo ko defal may ko oto may ko ko may ko soxnaam may ko teraanga dalal ko dalal journaliste yi waxtaan ak ñun ah Serigne Ndiaye bu naa ngi noonu mu nuyu kooku biyaa gi la ambassadeur bi moo taxaw noonu ci ginnaaw Lamine Samba ngi noonu mu ko naan sa ñaari montre yi xam ne moom ngay takk gis naa ko ah mu expliqué ndeysaan ci ñaari montre yi mu changé loo ko ko ci loxo yi mu ko takk ah waxtaanu ñun waxtaan woo xam ne waxtaan wu neex la loolu yëpp ci humour ak cofaal cofeel gi am ñooñu ay xaritu mën a jigéen ñii nag ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk yor protocole bi ci kaw di ay jigéen ñu baax buur nag dañ koy musical jiinal ko loolu mooy li nga xam ne moo fa am ndeysaan ñu musical ko jiinal ko ñu déglu hymne national biñ ci paree nag ci la ëmm seen di wàcc ci suuf ndeysaan moom tamit bu def wareefam wareefam mooy mu feccal Gambien yi ndaxte Gambien yi bëgg nañu ëmm bëgg goo xamante ni wane nañu ñun daal li ñuy ñaan mooy suñu président Macky Sall ak président Yaya jame ku ci nekk da dem jubóog Macky Sall jubóo na ak France Yaya Jammeh jubóo na ak Angleterre kon ñoom ñaar yaakaar naa ni war nañoo mën a jubóo ñu leen di ñaan ñu gën a jubóo ñu gën a bëggante. Ah, population yi moom juboo noonu bëggante noonu kon Kouthia ngi noonu mu waxee ci Yaya Jammeh Jaliba Ndiaye woyal ko président Yaya Jammeh bi mu xoolee Kouthia dafa reetaan ba fi mu tëddoon ah mi ngi noonu ndeysaan xol bi sedd guy lii yëpp dafa neex lii mooy wan ni ñun sénégalais ndeysaan nanu sant yàlla julli ci yonent bi ndaxte fu ñu dem rek man faa nekk nga yaayaa ngi noonu naan ko nuróo ma ak yow ngay sa ñaawaay bu rëy bii ah loolu la ko doon wax ndeysaan Kouthia tamit fa tubaab fakkaat la di artiste boo xam ne nawloo nan ko gis ngeen noonu yaayaa di nu nemmeeku di waxtaanu ñun di nu sargal li yëpp dafa am solo ñooñu ñooy tëggal Eumeu bi nu pare nag ci la Eumeu Sène tuus mbokk yi yàlla na ñaari réew yi gën a bëggante ñaari njiit yi gën soppante te xam ni seen bëggante seen jàppante mooy jàmm Sénégal bi te ñun amuñu lu dul Sénégal bi mbokk ñu xool tuus te dellusiwaat jërëjëf mbokk téléspectateurs yi mbokki Bantamba ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu fii ci Gàmbi ñu ngi leen di nuyu ci xew-xew bu mag bi nga xamante ni le président Yaya Jammeh invité na ko Eumeu Sène Eumeu Sène ànd ak ay mbokkam ay xaritam soxnaam ànd ak ñi nga xamante ne ni bi combat bi taxawee ak léegi ñoom rek lay gis di ñoo xam ne ñoo bokk écurie mu di écurie Tay Shinger mm. sa ak Yaya mm. waaw xam nga <laughs> xam nga relation yi mooy que bon wax dëgg yàlla xam nga suma papa kon comme ni koy mën a expliquer sama papa la xam nga ba pare tam aussi yàlla def ma am cofeel ci moom moom tamit waxi noppi mu nekk nit boo xam ne nit ku bëgg jàmbaar la Yaya Jammeh nit bu nit ku bëgg jàmbaar la xam nga waaw tax na tamit wax dëgg yàlla ba pare en plus xam nga gis ci moom diine xam nga gis ci moom tamit gëm boppam gis ci moom tamit dëggu xam nga moo taxit vraiment ba ma toogee mu ñaanal ma nga ma mbër bu la neex jëlal man yeeyaa maa la ko wax doon ak mbër bu mu doon nag mbër bu jox jëlal da am ndam incha allah. ba léegi loolu waaw loolu tamit am bon ma dem am combat bari yàlla may ma ndam kooku faaw ma delloo ko njukkal mais combat bi lu umboon dafa bëri. dafa nekkoon combat boo xam ne combat la ci biir combat yi lu ñu mën a wax ak lu ñu mënut a wax waaw na combat boo xam ne waruma ko ñàkk dama xam ne waruma ko ñàkk. ko da doon koon ñàkk gaw moon ne mun naa ñàkk combat boobu mu ànd parce que naa ci benn émission ne champion dëgg ñu koy xamee ci mu jëlee défaite waaw war a ñëwaat retour retour si la ñu xamee champion. xam nga rek combat moom bis boo waree daanu béykat dafay doy waar. bis boobu sa physique sa mën bëree sa dara du feeñ xam nga juste loolu la rek mais combat boobu liggéey naa ci dëgg parce que tamit aussi du liggéey di tolloog pendant douze ans wala dix laaloo suuf nekk mbër mu të nga ñëw ci benn combat di koy jaaxaan yi mënut a nekk sax liggéey naa li mu ci waroon liggéey mais li ci li ci biir mënuñu ko wax waaw ah, xëy na dama waroon daan rek ma damaa gis Mamadou Mbaye posé la benn question. ci conférence bi parce que gis naa nga wax na la ko nga jéem a daw question bi mais tey da koy tontu fii ci gàllankoor bàyyi non non déedéet lan mooy différence mbër <laughs> ak bërikat li ci bëri lan la ak li ci bërikat lan la. xam nga bon mbër dafay dafay am dafay bëri lu muy lu muy lu muy sóor xam nga mbër dafay xaw a ñaaw njort dafay ñaaw njort sax. ñaawoo njort. non man mun ba léegi sax mënu ma ko waaw xam nga dama koy jéem sax mais ba léegi mënu ma ko parce aussi tamit. xëy na nii dama yàlla suñu borom bindee dama koy jëm mais mënu ma ko non man sama jumtukaay matul dix matu ko matu sa set matu woon sax set. lu tax ah, man tamuma loolu xaw ma ko. combat bi gisoo quelques téere yi ma jotoon takk sax dama ko dagg def ko sama biir ngemb. xaw ma ko mais combat bi ñaanlu naa ay góor yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom ñaanal ko ci mel ni yaa jàmmee ñaanaloon na ma avant combat bi taxaw ñaan bi nangu na. ku ci mel ni sëñ Abdou Karim Mbacke sëñ Abdou Karim maa ngi koy sant bu baax di koy gërëm waaw jërëjëf moom ak soxnaam yi taalib yëpp Baye Fall yëpp nag ñu nekk Ndindi maa ngi nuyu Baye Fall yëpp waa Ndindi Thierno Abdourahmane Bari sama kilifa sama kilifa la te ñaana na bu baax dafa ñaan ñaanu nag sa ñaana bu baax Alaaji Jaane te nekk Màkke Njaane muy gu mag koo xam ne suma yaay moom ma yóbboon ba ci moom dénk ma ko moom ak soxna mi baax yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñaanal ma ci combat bu baax alaaji jaan maa ngi koy nuyu bu baax ñooñu ay góor yàlla la nga xam ne dañu jox darax dara ay dañu jox dara dañuy taal sa loxo ñu ñaanal la nga dem ay ñaanal nga dem. looloo tax yi ñaan ci yàlla. suñu borom bàyyi la nga dem. souvent bu débat de bare rek ma dégg la nga jël exemple ci sa yaay. xam nga suma xarit la woon te dafa ëpp lu ma liñ doon waxtaan maamu ci àdduna. dafa nam dafa ma dem tàggat saa su ne. di waxtaan dafa nam jàngal àdduna. suñ dem toog di waxtaan ñu ñaar ci wàllu diine rek lañ ëpp li ñuy wax parce que nag wax dëgg yàlla macha allah gëm yàlla loolu. Hmm. na lu bëri jukko yu nekk ci moom wax dëgg yàlla maa ngi ñaan yàlla suñu borom baaxee mu jukko yooyu. li may wax xëy na am na ñu mënul xam mais ki dëkk ak moom Casamance ak Dakar ñu nekkoon moom xam nañ xam nga waaw mu ñu toogee daf wax xamal ci àdduna lu bari saa ñu moo tax ngeen bari woon xëccoo. dañu leen wax ne moo sa yaay rek mën na la ngemb xanaa xamu kam moo sa yaay su ma dem di ñaanu ñu ne ma xanaa kam di moo sa yaay xanaa xamu sa yaay. jarul ngay dem feneen sa yaay yi xanaa xamu kam moo la jur. bu neexee du ma a doo daan de waaye dina soriante loolu su ma ñëwee ci moom mën a ma wax ah, soo tàllalee sa loxo bi ne du ma liggéey kenn tàllal sa loxo loxo ne kenn mënu maa liggéey. daana dogu ci say combat. waaw daana dogu mu wax yoo xam ne dogu na ci mu wër la lii la sa yaay ñaanal dina am da daan. Mm, waaw sama combat Gris Bordeaux dogu na xam na ma ni carrément wax na wax boo xam ne mënu ma ko wax fii dafa diis wax na ci dundam loo xam ne mënu ko wax fii dafa dogu ba pare na bu fekkee lii am naa ko ci yàlla wala lii musuma ko def yàlla na la yàlla suñu borom taxawu bu fekkee nag mus naa ko def. yàlla nga dur nga daanu wala yàlla nga daan jël bu rëy fekkee lii musuma ci jaar xaw ma ko waaw waaw dégg naa la yàlla na la yàlla suñu borom may ndam lu ñëpp di dégg ak lu métti métti yàlla yàlla may ndam léegi eh. léegi bu ñu ñëwee ci biir combat bi combat bi ni ko bëree dama jékki-jékki gis bu dee yow gëmuloo gàllaaj Balla Gaye am lu mu sànni mais nga daw wu di di xool loolu lu war a loolu nga teg gestu di xool loolu la piège la woon wala non du piège jéem ma ko sax piège wax dëgg yàlla. non piège nga ko kay ba daan ko waxal lay. <laughs> si que loolu mu sànni noonu mois de cela waxoon naa ci journal bi Eumeu Sène day piège Balla Gaye. non xam nga xam nga. lu tax nga li tax ma arrière non si biir combat bi. waaw bi arbitre bi sifflé mu sànni da nga arrière da nga arrière dem di xooli loolu. non xam nga taxaw. Euh, non xam nga dafa ma koo sànni. suuma ma jël ko sànniwaat ko ko. waaw ne gersu wu ma wanu ma ko ginnaaw moom mu téye ko bu bi sifflé. ko won ginnaaw bi lan la. non am na fas yoo xam ne bu la ko wanee boo wonee ginnaaw rek day day jàpp. <laughs> ci biir bëri bi. Mhm. yaa ngi doon demee wet rek. yenn saa nga sëq ginnaaw tànk yenn saa yi nga demee wet toujours yaa ngi songo bi moom nga bëgg mu ñëw lu tax. waa xam nga bu taxawoon. waaw tuuti dama koy songo. moom mu taxawaatoon. moo tax ma ne ko woon doo gis parce xam naa suma qualité macha allah. mais doo ma gis bi mus euh, euh, bëre la wala mystique la. non du mystique bëre. bëre la. Mhm. dégg nga ma ne la xam naa lu mu mën ak lu mu mënul. lu mu mën moom. man li mu mën ak lu mu mënul. moom xam nga li mu mën moom it ak li mu mënul. wax dëgg yàlla na xaw ma dese naa xam fooram. parce que mbër doo ko gisee ci combat kese. non boo daanee nit ñaari yoon dina am loo xam ci moom. dina am loo xam ci moom d' accord. Mm. mais mbër mënoo ko gisee si combat kese ngeen bëri. pour mën a xam ne kii bëri na da koy seetaan ba pat wala nga bëreeg moom ay entraînement. ngeen di waaw ngeen di bëri di bëri di bëri di bëri di bëri. ngeen di contact. ngeen di contact côté bu nekk. ci combat bi contact nga ci lu bari. contact naa si trois mois. trois mois waaw yoo xam ne waaw ñetti weer yu ban erreur la Balla Gaye def ba nga daan ko. Ah, ci wàllu bëri ah. waxuma ci mystique ci wàllu bëri moom bëri laay wax. bon def na bon jum na ma daan ko mais lu mu bëri tam aussi teg na ko ci yoon. est-ce que xeex ba tegoon na ko ci yoon. waaw xeex bi nag wax dëgg yàlla xam nga xeex na mais dafa am surprise biir xeex bi parce que moom foogul woon ni dinaa taxaw xeex moom. di nga riposte ci kaw mais tout le temps dama koy wax suma gaa yi attaque contre attaque moo gën a diis moo gën a métti. Mm-hmm. moo ëpp doole attaque am na doole mais contre attaque dafa am doole. Uh-huh. Uh-huh. waaw contre attaque moo ëpp doole attaque. te xamoon nga ni dina ñëw nga def contre attaque. waaw mais nag man nag lu ma jàppoon mooy dem fekki ko parce que su ma ko fekki woon. waaw waaw ah, li mu def suma xel bu ci yàlla àndoon. yaakaar naa dina daan pare kon suñu premier combat dina daan pare toog du mën a jóg. toog mën a jóg waaw. xam naa nag ci biir xeex bi jël na coup jël ñaari coup nga xam ne man mii xam naa ni door jël na coup prin bu baax. bu jël coup mais ci biir jël coup bi yëpp daf ma sàcc. waaw. waaw ma sàcc ci la ko remplacé bal ko ñu ko balee ëñ ko takk ñu def un mu ngoom ba ngoobu ma jutoog man maanaam mu ngoob ma di ma dëgg mbot di dëgg mbot dëgg mbot waaw mais ku ma xam man xam ne kenn du ma mbot nga nga yokk ko waaw ma du ma mbër mu mu nga mëpp lool mu nga ma sut trop mais du ma mbër mais attends mais naka la la mën a bote te bot bi du réussir te moom mu ëpp la rallonge merci su forcé woon loxo mënoon a déboîté wu bu forcé woon bot bi waaw man kenn du ma man mburu tànk laa mburu wet laa ba pare bëree dafa ci am ay technique yu bëri action yu bëri yoo xam ne ba maa créé sama bopp yow yaa ko créé waaw maa ko créé sama bopp comme lan lan <laughs> garaaw nga bëri non bëri xam nga ah. eh, xam-xam li ñuy wax resoru ko bëri man su ma saa contact ba pare dinaa toog xool nu ma daanee mbëri wala na lañ ma daanee mhm. su ma dellu ci action su ma ñibbee naa xool la ma ko war a contrer parce que ne ko damay contact rek ba dem tëddi sama kër nelaw damay toog di xalaat ba gisaat action mel ni maa ngi ci maa ngi maa ngi ci entraînement di contact. da ngay dund bëre bi quoi voilà merci te tam aussi action boo gis day def ñaar ba ñett. ci biir mhm. bëri fii la fekk ci kaw la comme ci bëri bu bëri bu njëkk bi dama lay nax mhm. sa xel xam xel dafa garaaw soo dee tag automatiquement rek xel bi day wàcc suuf waaw léegi nag ci kaw laa soxla soxla woon foofu bëri noonu rek combat bi bëri suuf ba nga woon yow <laughs> non combat bi moom dama ko bëggoon jëli nag mais ci biir jëli bi nag dama bëggoon def deux temps ba trois temps su ma jàppee benn jàpp balaa moo xëppi war na fekk lamb yi jeex. xam naa du ñu dellu si sax ci coow loolu après li nga ci wax ak tout ça mais bi combat bi jeexee. bon xalaat naa lu bëri parce que combat bon dafa am nu mu ko doon bëriwaalee luñ mën wax ak luñ mën wax xam nga déjà. da nga ci bëri woon ay adversaire merci dafa nekk combat bu doy waar suma ma laajee. waxal ak man. dafa nekk combat bu doy waar xam nga boo xam ne combat boo xam ni moom gënoon sama combat yi mu mës a bëri yëpp. ah. ndax adversaire yu bari yi ci ne. waaw dafa nekkoon combat bu tey waar xam nga am na loo xam mënuñu ko wax parce que man wax xam nga mais dafa nekkoon combat boo xam ne combat la ci biir combat yi. ci biir combat yi. ci biir combat yi moo boo xam ne moom laa gën a respecté suma suma sa carrière. voilà. nga daan Pikine na daan. Ama Baldé daan samedi nga daan dimanche coow di am Pikine ñu naan dafa am camp waa kër Fallaye camp wu waa kër Eumeu am na coow lan la. non laaj naa la ko bañ coow xaw ma ma jotoo ma kenn. dara waxal ak ñun daal xam nga non waxal ak ñun parce que écoute. non Sénégal ñoo lay déglu. te lii ma lay wax c'est très important te nit ñi duñu fort di sànni. déggu ma bu ah. baax man dama nekk nit boo xam dama direct lépp lu mu wax dama koy wax parce que dama yàlla yónni ba nga ko laajee dafa ne nit mën a def lu ne bu mu des ak moom dara. non pas ama mais ah. am na ñaari clan yu am Pikine clan wu ëmm clan wu waa Kër Fallaay. non peut-être sax am na yeneen clan yu nu mënul wax yu ma xamagul mais dégg naa de toute façon neexoo amul. comme man neexoowu leen. non suñu suñu côté moom amuñu problème boobu suñu côté amuñu problème boobu parce que man taluma loolu sax quoi vraiment et puis bokkuñu. mais dégg nga rumeur bi ma dégg dégg nga ko. rumeur loolu coow li ñaari clan yi dégg nga ko. non xam nga boo gisee loolu mooy que xëy na juste bon waa Pikine. xam nga Pikine kon mu ko expliqué 100 pour cent Pikine waaye xam nga am na ci ñoo xam ne Pikine bon vraiment am na lu ñu gis wala am na loo xam ne seetlu nañ ko ñoom ñu ñoom ñu ñu ñu réagir. Mm-hmm. ñoom ñu réagir xam nga mais ah ëmma ak ñoom. jotoo maa ñoom dara parce aussi wax dëgg yàlla fexe wax yàlla rek. non parce que li ñu gisee non parce que amul woon ëmb ak ñoom ñoom ñun la woon ñëpp. ñun mm-hmm. moo fi ne woon. léegi mu am ëmm ak ñoom soo déggee ma ne la ñoom parce que déjà da nga ne kër gi ak lii moo tax ma ne la ñoom. waaw mais man awma problème boobu. dëggul mu la xëy na am na lu ñu waa Pikine seetlu nit ñi wala am na benn réaction boo xam ne ñoom def nañ ko mais sans ëmm ne leen nangam wala ñu dugg na fi wala génn fi ma sax xel ci loolu ëmm jotewuloo kenn dara. mais bëriwaale nga ko. non bokk maag bokk maag moom génération kon ko expliqué. waaw waaw waaw benn non man waxuma visé ko. moom ah, groupe bi waaw foofu laa lay expliquer c'est que dañu am lu ñu gis am lu ñu seetlu am lu ñuy doxee seen xol fippu ñu am lu ñu doxee xam nga kon ko expliquer mais man awma ak ñoom jàpp moo euh, euh, Falaye Balde bi la sol waa xam nga exactement yëpp mun na ci nekk xam nga ah. plus xam nga xam nga seen seen xam nga tey ni kenn ko tànnal xarit. xam nga nit waaw waaw non du loolu. sax mais xam la. non man dama jaar foofu. daanaka Pikine ñëpp benn la Pikine benn bopp la kenn ko xar ñaar écurie boobu voilà écurie Papa Diop mbër mooy nuyu son papa Pape bu baax. champion d'Afrique xam naa dina ma déglu. Boston Boston. <laughs> Boston léegi mooy léegi bi ah. moo fi moom mooy paa bi la mos a doon sax. waaw non xam nga moom fi nekkoon léegi moom moo fi ne. exactement xam nga. tey xam nga maa koy nuyu bu baax di koy sant bu baax di ko gërëm ñëpp benn lañu woon xam nga écurie bi benn la xam man ba may ñëw. fekk na boobu man tout tànk laa xam nga xaw ma sax nu fa tëddee xam nga. Mm-hmm. mais fekk naa la ñuy ànd nice xam nga man si ñoom laa nekkoon. même mm-hmm. écurie bi ba seen écurie nag amee problème ku nekk bés ñi jaar ni ñi jaar ni man ci laa retiré wu suma ñàmbur. ba nu ma demee bul faale. comprends nga mais boobu fekk na boobu leader yi Ndiaga Diop la. xam nga Balla Beye numéro 2. Balla Beye numéro 2 Tyson. Mm-hmm. Pape Cissé. xam nga concert googu ñooñu ñëwoon quoi. mais man ñooñu ñëpp gisuma leen ci combat bi. si sa combat ñooñu ñëpp gisuma leen ñu ñëw jàpp ci wala. waaw xam nga mooy lu ma lay expliqué rek xam nga nee naa ba may am 18 ans 17 ans ñoom ñëpp kenn mu ñu ci woon daan. li ngay nekk foofu ci ñoom. mooy nekk si ñoom li may wax ñoom ñëpp nga may dégg. mooy dem équipe nationale. Ah. fekk na ma të. te mhm. dañ dem ba ne kii day ngemb entraînement kii kii mun ko daan. mën naa toog trois ans du ma daan wala quatre ans entraînement hmm. waaw chaque jour may bëri ñoom ta dañ nekkoon dañu ubboon làmb hmm. voilà merci kon tey xam nga mooy lu mu lay expliqué man amoo problème ak hmm. aw ma jàpp ak yàlla ñu tiim xam na loolu làmb ji amoo dara loo ci regretté combat bi combat bi bii nii waaw non non non amoo rek sant yàlla bu baax looy wax Pikine xam nga di leen wax rek ne leen xam nga nañ ma gën a ñaanal te roi des arènes incha allah moo fi bàyyi. parce que dem na ko dikk ça veut dire que Modou Lo Bombardier ku daan soxla nga ko. waaw war nañoo mën a bëree xam ma du ma a nag diw ak diw ak diw parce que tollatuma foofu. non parce que non non ñoom ñaar ñoo koy bëree. merci te tey voilà ok li ma am moo dàq roi des arènes. xarit laa xëy na xëy na ni ma ko commandé ans xaw ma 32 ans yi ma. mais man boole woon naa la ci doyen wu la. merci xam boo déggee doyen lamb ma am 18 ans. fekk na ma nekk uh-huh. ñëw nekkaat champion d' Afrique. Uh-huh. ma ñëw tëllu toll ak ans xaw ma ans 8 ans kenn mënu daan am coow am seen boobu na ñuy dégg di dégg di dégg ba léegi boo def naa da nga yaakaar ne am seen voilà. mais tey man tey kon mu expliqué ay mbëri yi nga fay mbiki ni moo fa nekkoon lépp. mbëri ñoom mag ay fukki at. ay 12 ans 13 ay ñi ngay ay bàll bi numéro 2 ma xanaa quinze ans. parce que sama mag bi ñuy ànd dem àndal ñoom ak sama mag boobu tam topp ma sama mag ñëpp dem Tyson ak. ñoom ñëpp Pape mag ay 15 ans ñoom mag fuuf. Modou Lo yow ak euh, Bombardier Modou Lo amel nga ko revanche Bombardier yow it yéen ñaar ko ci daan rek. ëmm la directement bu kenn indi beneen coow boobu mooy combat bi boobu la ñu bëgg. aw ma sens bokk na ci li njëkk laaj yi Yékini ba ma naan ah foofu diis na de. waaw Yékini boo gisul ma laajoon ko xam nga yàlla def na si incha allah xalaatuma sax ñu bëriwaat. eh voilà pourquoi. Ah, non xalaatuma ñu bëri ñu ñaar non sekkuñu jàmm rek bokk bokkuñu dara jàmm rek. mais làmb leen boole. waaw merci mais fii ñu toll boole na leen. waaw d' accord xam nga tey. soo gisoon mosoo ko. est ce que xam nga ne boobu combat. soo gisoon ma dëkk ko xam nga ñoo nekk boo ko nekk équipe nationale da bokk leen woon néeg bokk néeg même bu ñu tukkee hôtel bu ñu musaa génn bu ñu musaa voyage ñooy bokk hôtel sama néeg la naa ma eh, kaay fii waaw suma gaan dañu daan bokk ñaar di julli ñuy fay musa nekk yëpp ñooy bokk waxtu mu jiite wala ma jiitee ñu julli nekk ay waay mu nekk nit bu nit bu am diine nit bu baax nit bu am kàddu tamit aussi nit bu respecté kaddu tamit aussi mm. vraiment ak dëggu gis naa ko ci moom te yàgg naa ak moom te loolu ma gisee loolu laa yàgg gis si moom nga ko daan dëkk. merci tax ma dëkkuñ ko mooy dama yàgg indi sama mag yi mu leen di toroxal mu leen di daan jëli ñaaw. nga ma nekk xale ma yàgg jooyloo waaw maanaam. Hmm. dafa mun bëre. mais amel na la bor ko. damay ñëw indi Balla Gaye numéro 2. mu daan mu dum ko dumuy métti daan ko jëli bu rëy. ma jooy reeru ma ñibbi suma kër. ma indiwaat ko mu jàppaat ko daanaat ko jëli bu gën a ñaaw boobu ma jooyaat ñibbi ma indi Tyson jaaraloo ko yoon <laughs> dafa mun bëre nag dafa dafa dafa mun aar bi mais ñaar ñu mën a bari war a bëri merci mu jàpp leen def leen jëf joo xam ne tellement dama dem ba dafa doon jooy la saa su ne saa yu saa jooy làmb ji ñibbi ci sport rek moom la waaw moo la daan tegi jooy waaw te da leen di daan ak manière boo xam ne da leen leen sans léegi nag loolu moo taxoon ma dem ba. du ci seet dara quoi voilà merci du ci seet dara xam nga <laughs> loolu moo tax ma dem ba benn moment bi nag fayul sumay mag laa bëggoon. <laughs> waaw waaw fayul sumay mag laa bëggoon. Ah, xam ah, nga mais ah. tam aussi vraiment. at ah, mi weesagul. non xam nga no fu ta toll nii ma wax dëgg yàlla moom xam nga sant yàlla. da ah, nga ko bëggul bëggoo ko daan quoi. non du question bëgg ma ko daan non est ce que mën naa ko daan sax <laughs> ah, xam nga est mais wax dëgg yàlla xam nga dama am temps boo xam ne dama ko war a boucler rek dem. kaddu bu mujj bi lan lay doom ci. réew mi waaw du Thierno Ndong. Thierno Ndong. mooy jëkkëru Aminata Tall. waaw Thierno waaw Ba waaw Aminata Tall tamit jàpp na ci combat ne 5 millions may ma cinq millions cinq millions la ma Aminata Tall may. ah bon waaw. Ah, tamit aussi jàpp lañu. cër bi dina ñëw waaw di di nuyu tamit aussi euh, euh, Abdou Karim ah. jàpp na ci combat bi mu jox. Malick Gakko. Ah. na ci combat bu baax. mais ñu bari sax dañ doon wax non moo wax Malick Gakko pour jaxase. non jàpp nañu parce que Malick Gakko Sénégal yëpp lay jàppale. du Malick Gakko Guédiawaye kese. du Malick Gakko banlieue bi te Pikine moo jur Guédiawaye te Guédiawaye Pikine benn lañu. Bécaye li moo wax da nga ko teg. ah mais bien sûr. <laughs> Pikine ak Géejawaay benn lañ benn bopp lañ kenn mënu leen xar ñaar Géejawaay mooy Pikine Pikine mooy Géejawaay làmb la rek. Hmm. ñëpp benn lañu. ñëpp benn la ñëpp benn ñëpp banlieue la te tamit aussi ñun dañ koy centré suñu suñu biir parce que dafay daf ñuy jàppale. Hmm. te jàppalewul banlieue yëpp kese am na ñeneen ñeen jàpp c'est na nag banlieue moo ci raw. moo ci raw bien sûr parce que am 17 dem dem syndicat di dem ay àll meew di dem géej lang ay terrain xam nga di dem syndicat yor ay ay ay ay xaj di dox ci xam nga man damay expliqué ay détails xam ne da nga naan a niroo tuuti waaw xam nga dafa live dafa live dafa xosu dafa carrière ci live am kon ñoo ko bokk rek te aussi nañ ko ñaanal parce que nit ki lu la may ci alalam lu daw ndaw ndaw moom moo ko ñàkk uh-huh. sant ko rek sant ko man maa ngi koy sant ñu ngi naan ay 10 millions la ma jox yàlla xam ne lu ma jox mu du sax yéegu sax 3 millions wala 2 mais geste bi moo rafet. ak bëgg laa ak joxe wax façon bi. façon moo rafet loolu moo tax ma ma sant ko xam nga maa ngi sant sant tamit euh, Cheikh Kanté. waaw Cheikh Kanté tamit yëkkati na lu tolloog 5 millions xaw ma 4 mais kon yow bari nga xaalis ah. <laughs> Cheikh Kanté jàpp ne Farba Ngom. waaw jox na ma xaas bu weex tàll. maa ñaata maa baax xam nga. moom ñaata moom jox na ma lu tolloog ay 2 millions jëm 3 millions. ah Farba. Farba Ngom jàpp na ci Ablaye Timbo. le maire. jàpp na ci combat bi. xam nga mm-hmm. ñu jàpp ci combat bi bëri nañu. bëri nañu waaw di gërëm ñu nag ñoom Baxaw ñoom ñoom euh, xaadim suma rek tam ak gërëm ba ak ñoom Tyson 2. xam nga ñoom Nguer ak Mandela xam nga Mandela tamit jàpp na ci affaire yi Eumeu xam nga ak yi dañoo lëlu lëlu woon yow. ci combat xam nga ak xalifa xalifa ñaam xam tam moo téye lépp. waaw xam nga ci loxoom maa ngi koy bu baax xam nga nu mu seet kii baax na grand cheikh ñoom Cissé ñoom moom Lamine Diom. Diallo mm-hmm. suma entraîneur kët Diallo jàpp na ci ak vraiment ak Djigo combat bi moom xam nga ñëpp jàpp na ci waaw Macky Sall sax mi ngi ci biir xam nga. <laughs> mais attends foofu laa bëggoon a ñëw yow euh, président di nga ko seeti wala Macky Sall. waaw incha allah incha allah Yaya Jammeh di xam nga Sénégal ak Gambie benn la Sénégal bi la ñu wax. Sénégal bi olof bi ñuy làkk fi mu lañu làkk fii soose beeg yëpp ñoo nekk Sénégal ñoo nekk fii ah, ah. joolaay yëpp suñu biir. Sénégal bi xam nga. Mm-hmm. ñëpp benn lañu li xaw fii moo xew fee lu xew fii moo xew fii. Uh-huh. xam nga ñaari président yi barki démb ñaar yaa jàmm ba muy def euh, kiyam. waay feetu kiyam bi. Euh, feetu indépendance bi yaa jàmm kii la def. Euh, Macky Sall président Macky Sall la def invité d'honneur. Mm-hmm. xam nga yaa jàmm nag suma papa la. waaw xam nga defal na ma teraanga ju jàppale na ma ci wàllu ñaan. maa koy sant defal ma teraanga. mais moom il paraît que dafa moom il paraît que dafa ñàng ci ñaan yooyu. ah alhamdulilah man de lu ma lu ma waxoon lu bokk ak làmb ji sax teg naa suñu bët. lu mu la a wax nga gis ko. waaw lu ma waxoon lépp. waaw teg lu bokkul ak làmb ji ma ñaana waxtaan nañu. yow làmb ji bu liñ la ci dimbali mat na 40 million ah waaw sant yàlla daal. bugguma kon yow temps moom bu bu bu la kenn. non làmb métti de. ah non bàyyi làmb métti di wax rek. békaay làmb métti. Ah, yooyu yëpp moom moom moom après ñu wax ci yooyu moom hors antenne quoi. <laughs> Euh, am na tam ku may war a sant mooy que Amadou Diarra jàpp na ci combat bi. waaw ah. Ablaye Diop tamit jàpp na ci combat bi. xam ma maa ngi sant tamit euh, kii Amazone hmm, bi ak Iboula ah. jàpp nañ ci combat bi. jàpp li na nga ko teg de bu dagg. de non non bu yàlla xam li ñu bëgg a xam fii ñu toll nii li ñu bëgg a xam fii mooy sa diggante ak président Yaya Jammeh ñaata la la may. ci tukki bi non bëgguma ca topp moom. bëggoo ku cat fi mu toll kon teral na ma daal jàppale na ma teral na ma sagal na ma wax dëgg jàkkaarloog yaay jàmme kese su ma joxul dara rek dafa neex. may na la ay ñaan bi ma ñaanal ma gis ko ma gis ko. moom ma daxas ay million wax dëgg yàlla kontaan naa trop trop. mayu la oto sama papa yaa <laughs> na la oto maa ngi lay sant bu baax président. maa lay sant bu baax di lay gërëm. di nuyu sa njaboot gi yëpp waaw ñëpp sama fans club Gambie nag ma ne sant bu baax fans club Gambie. waaw ñoom Dembo xam nga ñoom Fatou Socé. mais war nga wax li la Yaya président Yaya Jammeh may. jàppale na ma béykat yi bu insté. mais kontaan mu euh, lim la may ak li nga fayee ko bu ëpp. ah sant naa yàlla daal di <laughs> bon. Mor Ngom maa ngi sant bu baax <laughs> Mor Ngom Mor Ngom maa ngi sant bu baax bégaay lii ma fi wax nii nag ci gërëm gi wàllu gërëm gi dama yéene ñaan nga tegal ma ko kii spécial la waaw parce que vraiment dañuy sonn ci man te dañ ma jàppale façon jàppale bu nekk xam nga waaw di nuyu ñoom Ndey Ibrahim ñoom jaara ñoom jaari xam nga ñoom ñëpp maa ngi bu baax a baax a baax xam nga xam nga ak ñoom baxaw ak ñoom puissance ñoom ñëpp xam nga gars yi wax dëgg yàlla jàpp ñoom big moo ñoom fiig gars yi jàpp nañ ci maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp et puis ñu gis nga ànd ak sa soxna sama doom Gàmbi <laughs> waaw teg ko ci kanamu oto bi. tiim ko loolu lu mu tekki. waaw xam nga moom wax dëgg yàlla xam nga moom du ma ko fara sax man moom du ma ko fara sax di génne ci mel noonu xam nga parce que moom bu yooyu sax xam nga c'est la première fois sax su ma juumalee. mu génn ci waaw mu génn ci mel noonu quoi. mais xam nga dañuy invité ñu ñaa ñëpp. waaw kon dañuy invité ñu ñaa ñëpp mun da ñàkk. jabaru mbër métti na de. waaw métti na trop boo daanoo ñu ne ah. jigu ko jigu ko. waaw dëgg la vraiment waaw dégg na lu nekk nag. waaw dégg na lu nekk nag mais aussi xam nga noonu la quoi xam nga. mais mu toog jéngu rek. waaw moom borom baax la quoi. borom baax moom jàmbur la quoi. ëmb ngi lay gërëm. waaw maa lay sant bu ah, baax Bécaye xam nga am contentement bu rëy nag ci jàkkaarloo bi. waaw parce que ku yokk làmb nga wax macha allah. yow tamit xam lu baax rek ngay doon xam di koy wax. waaw lu ci émission bi nag lu ma juum ñu xam ne. ci man la je crois que ça mais li ci baax rek yàlla suñu borom la. mais lu ma rek. waaw ci lu ma juum rek ñu xam ne nit moo matul. mais li ci baax ñu xam yàlla suñu boo moo ko kii. Ah. mami ñu ngi koy bu baax. séeri la njang ëmb <laughs> nag moom may suma copain la njang oto. waaw ah. ëmb ma zone ah. bu baax. may na suma la njang oto. <laughs> may na ko ko may na ko waaw maa ngi ñu ngi lay gërëm. ah félicitations di nuyu Ndiaye. El Hadj Ndiaye ma amee Sokk. waaw Fouta. ban combat la woon. bon euh, fekk na amagu mun combat mais fekk na boobu bon dama ne invité foofu benn benn benn benn lamb fa dam am. nga dem fa ma demoon fa am choc waaw am choc bu métti xam nga bu doy waar sax oto bi bi def tonneau mais daf ma dala ci hôtel hôtel bu ñekkoon moo ko fay yónnee oto mu ñëw jël suñu ñekk ci condition yi bien ba mu yegg seen kër def ma kon doomam bu mu jur. maa ngi koy nuyu bu baax wax dëgg yàlla nuyu ma ko bekkaay gërëm ma te lii ma ci wax na nga teg maa ngi koy sant bu baax. ah non moom moom moom télé vraiment maa lay sant <laughs> di lay gërëm bu baax a baax a baax. parce que vraiment geste mu def. waaw ah, lu rafet la waaw rafet na trop. non noonu la mel. lom da wuduru kon doom te aussi tamit doomam bi nu mu tuddati Abdou. Abdou suma gaayen la <laughs> waaw Abdou suma gaayen la maa lay nuyu bu baax xam ñoo bokk fi ñuy woto maak moom xam mais gentleman la waaw gentleman la borom sama fils bu baax la xam nga maa ngi nuyu tam aussi xam nga El Hadj Ndiaye daal maa ngi koy nuyu di koy nuyuwaat di di koy nuyuwaat parce que ak waa nga maa ngi nuyu mais El ma fayam tamit aussi kaw def na geste boo xam ne dafa ma marqué ba ba léegi te aw moon école saa ma toog koy fàtte El Hadj maa lay nuyu di nuyu sa famille di nuyu sa jabar soxna di nuyu ñëpp merci. séeréer day laax naaj de. muy séeréer xanaa moom lépp. mbir naaf jam som. a ñaaja o ndig rek. a noosa. a noosit a ah, a noosa waay. Eh, fo dégg séeréer. we eh, père moom séeréer. kii gox na sax yow mi war ngeen ko xoolaat de. mais kon foo eh, de. ñoo bokk tur Mamadou Ngom la waaw mais maa ngi fay doog moom amee defet laa ñëw doog a ñëw si Eumeu Sène. après Modou Lo maa ko may loxo. nga kaay waaw maa ko njëkk yóbbu ko sali di ko yóbbu fu nekk di ànd ak moom may ko courage. di nu waaw di nu bu baax a baax. cosaani maam la